jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan te ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Kaolack li ñu fi indi nag mooy drapeau chef de l'État mu doon quatorze raisons yoo xamante ne ku ci nekk da ngay défendre couleur bi nga xamante ni mooy sa couleur raison mu nekk loo xamante ni tey gis nañ fi dëkk yu bari ñëw nañu. dëkk yëpp daanaka mën nañ ne ñëw nañ ci li nga xamante ne mooy drapeau chef de l'état bi gis nañ fi ay champion yoo xamante ne kenn du leen présenté ci làmb ñoom it gis nañ leen fi mu nekk loo xamante ni tey mooy ouverture bi démb nag bokkoon na ci li nga xamante ni ci lañ defoon pause bi bi nga xamante ni moom lañ def pesé mbër yi xool euh, seen physique médicale tey nag mooy compétition bi commencé nañ par équipe dañuy xool équipe bi équipe bu ci nekk nan la compéti noonu la duggee ci compétition bi ak fan la ci génnee mbokk yi ñu leen di jëfalaat bu baax kaa leen dugg xool lépp loo xamante ne xew na fi kaay leen Kaolack wax dëgg yàlla jàpp jàppale li nga xam ne mooy président de Kaolack ñu ràññee ci rek ku mel ni Modou Ndiaye Rahman kii naa def lu am solo boo xamante ni xam nga loolu ràññee ci madame le maire Aïssa Ndoye Ndiaye ràññee ci Pape Demba bi tey ràññee ci madame le maire Ndeye Ndiaye Awa Gueye. dama leen dimbali rek. justement loolu la ñu tudd moom la ñu si le directeur général de la Sénélec c'est lui qui a financé le rapport de financement ministériel de Kaolack avec 4 millions 500 mille Pape Demba bi tey est là aujourd'hui le président du CREC directeur général de la Sénélec merci à toi pour le soutien pour le CRG e de Kaolack. mbokk yi. ñu ngi noonu ci compétition bi dox ci diggante Dakar ak Louga Louga moo rouge Dakar moo bleu Dakar wër na ndomba walla Louga wër na ndomba daan na ko Louga amul jàpp ngeen mu ndeysaan tey ak lamb Sénégal kenn du ñoom ndeysaan ci mim réew ñoo di ay onge daan na Fatick Louga ndeysaan ngóor ñaax mooy bëre noonu ngóor ñaax ngóor waaw waaw Ngor ñaax na ko ndeysaan waaw waaw Fatick Louga waaw Abou Seif mooy waaj a ñëw Dibakor na ko booy bi bañ waaw waaw Dibakor waaw waaw bi moom moo ngoom la ak Faye waaw waaw jël na ko rëpp na rëpp ko xanaa trois bi di jël ndeysaan wala matul saa waaye da koy yër génn da koy yër daal di génn ndeysaan jël na ko plaqué na ko daan na ko Dibakor sañ daan na ko ndeysaan Dibakor daan na ko oh oh, oh, oh. oh ah li ma jaaxal mooy li ma jaaxal mooy ci 86. waaw waaw ndeysaan ak laamu Sénégal Abou Assef mooy bëre fële ndeysaan Fatick Matam Fatick Matam ndeysaan Fatick Matam Papa Ndiaye Papa Ndiaye Abou Assef Abou Assef daan na ko ndeysaan Abou Assef daan na Papa Ndiaye waaw ndeysaan o oh, El Hadj Ndiaye bi daa sifflé rek mu jël tànk ba ndeysaan waaw waaw lacrymogène na ko si kaw waaw bàyyante waan nañ El Hadj Ndiaye El Hadj Ndiaye waaw ñaata ñaata 66 kilos bi dañoo raw nag xaw ma ku ci daan moom laa bëgg a lijjanti après waaye instant bi ah Dibakor moo daan Wos Jordan génne Ndiombouraas da kaa daan sax ndeysaan waaw waaw oxo El Hadj Ndiaye ak lacrymogène amul jàpp ngeen mu waaw waaw El Hadj Ndiaye na tànk ba demaat na suuf El Hadj daan na nga xam eh, la nga rapporté laa la. lay la xëy la waa waaw Tony Junior jël na ko waaw waaw malam ñaare nga koy jéem a mboot arbitre laa ilaaha illallah waaw waaw malam ñaane am na avertissement malam ñaane am na avertissement malam ñaane numéro 2 la ak Tony Junior ndeysaan day neex fii ci Kaolack ndangaan loolu 86 kilos yi la waaw waaw Tony daw na jël ko waaw jàpp ngeen ba amul. ndeysaan waaw waaw bàyyante waan nañ malam ñaani mborum petit lo bi ak Tony Junior waa waaw malam ñaani daw na dapp ndigli waaw waaw Tony bañ na waa waa malam ñaani ak Tony ñu ngi si ndeysaan fu ñuy mujjee Tony génn na ci malam ñaani war na ko ndomba Tony def rotation ba génn ci ndeysaan waaye malam ñaani kay yenu waat yenu waat na ko ñu xool Tony ngi bëre bëre ci ne ndeysaan ay waay ñaari xale yi bëre waaw waaw fu ñuy mujjee lay Tony kor na ko oh malam ñaani daan na ko ndeysaan Tony Junior daanu na bëre na ba daanu ndeysaan Sossokh Gandia Fama ndeysaan waaw waaw day neex ndeysaan loolu mën naa raw gàddu la fi ñu toll ndax nee naa leen dafa am raas am poussière am raw gàddu waaw waaw ba jaxabal waaw wër na ko ndomba saa waay signalé na signalé na waaw luy am gàncax faama wër na ko ndomba ndeysaan gàncax delloo waaw waaw waaw faama am na ndam mu koy yëngal borom ambiance bi ndeysaan gàncax faama am na ñoom sa tere waaw waaw ndeysaan waaw waaw oh jël na tànk ba ngañ bañ ndeysaan Diourbel ak li nga xam ne mooy Kaolack waaw waaw 3-1 la fi ne nii ndeysaan ndax Kaolack moo am li nga xam ne moo di 1 Diourbel am li nga xam ne moo di 3 ngañ seen booy fay loolu revanche la ndax ngañ a ko daanoon fi nga xam ne ndeysaan moo di adresse Senghor tey ñu daje fii drapeau chef de l'état ñu xool ni ñuy mujjee ñoom ñaar ay way ñuy woote si téléphone bi bàyyi leen dama jàpp ah day neex ndeysaan day saf ngañ seen ak nga xam booy fay waaw waaw laa ilaaha illallaah waaw waaw ndeysaan ke yëkkati na bula ki yëkkati rouge kon na ngañ nee na ngañ moo daan booy fay trois bi ngañ tàllal na ko deux ndeysaan aara booy bawal sayer daama waaw 100 kilos Ndakaaru ak 100 kilos Kaffrine ndeysaan waaw waaw Fatick ak ki nga xam ne ndeysaan oh Ada Boy Bawal Ada daan nañ ko ndeysaan Sayer Ndama Sayer Ndama daan na Ada Boy Bawal jël bu gaaw ndeysaan Sayer Ndama daan na Ada Boy Baol. Ada Boy Baol. Ah. Sele rajo xeetu. na ko ndeysaan da doon def action far toog ndeysaan oh Fils de Baline tey nekku ci ndeysaan ñaari jël la ma Kaffrine Kolda waaw waaw Seen Ndiaye Seen na Sadio Balde Seen Ndiaye na Sadio Balde Seen Ndiaye jël na na tànk ba Balde waaw waaw Seen na Sadio Balde daan daan na ko ndeysaan Seen Ndiaye daan na maayo Seen na Sadio Balde Seen Ndiaye Bintu maa ngi lay ziar ndeysaan. Zidane am na deux avertissements arbitre sifflé waat na waaw Miti borom Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar maa ngi lay bëggee waaw waaw di bëggee waa kër Baba Alima waaw waaw Abasé fa ngay jéem a mboot ndeysaan waaw waaw na si loxo bi ngoobu ko ci kaw ndeysaan ñu xool ñoom ñaar waaw waaw Abasé ngoobu na ko ci kaw ñu xool ba xam waaw eh. takk na ko ndeysaan Abba takk na ko bu di bu di dóor ci daan na ko Abba Chef daan na ki a xam mooy Zidane Diallo waaw waaw Fatick Fatick 3-0 gum foofu mook mook Saint-Louis waaw waaw ordinateur mooy ak Matam ñoo si ñëw waaye fële ndeysaan Saint-Louis la ak ki nga xam mooy Fatick Fatick am na 3-0 ndeysaan si kaw Saint-Louis bi ordinateur ak Sylvain ndeysaan waaw waaw Momo mooy yëngal foofu ndeysaan di ambiance ndeysaan day neex waaw waaw Laurent Silva la ak ordinateur Mamadou Faye borom Ñaaxar ndeysaan mbokkum ndeyum Lamine ndeysaan ñu war ka sargal le 5 waaw ordi daw na jël ko plaqué ko ndeysaan waaw waaw ordi toppal ma ordi waaw waaw nee na gaa yi jëlal ma loolu ndeysaan ordi nee na gaa yëpp ndeysaan lay raafal waaw nee na rendi waaw waaw almalikoy takk na ko dakk na ko dakk na ko daan na ko waaw waaw si kaw Saint-Louis Fatick 0 nee na ñëpp ndeysaan waaw waaw nee na ñëpp waaw waaw nee na ñëpp la ñuy caw laay laa xëy la laa rakk daa sumaare bi daan na ndeysaan. nee naa am raas am poussière am raw gàddu am am poids lourd ndeysaan ak poids léger waaw waaw juróomi poul la ndeysaan waaw waaw jëlaat na tànk ba dabuwaat na ko dàqañu na oo oh, ñu waaye bu dee trois bi jël la trois bi am na trois bi ku nekk 2-2 arbitre bu dee 3 appuis jël am na de noppiwuma laa la noppiwuma waaw demaan nañ arbitre sifflé Pa Demba ki nga xam ne ndeysaan waaw waaw Pa Demba jël na ko eh, gars yi capté nañ ngemb yi de waaw waaw ndeysaan Dibakor ak Pa Demba Dibakor Pa Demba dem na di ko yërndu Dibakor rasu tëru ko waaw waaw ñu xool ñoom ku nekk am na deux avertissement ku génn saako yi rek musiba dal la ndeysaan waaw waaw ndeysaan waaw waaw waaw jeex na jeex na ndeysaan waaw waaw jeex na ndeysaan waaw waaw bula bula mooy gagné Dibakor gagné na ko Dibakor gagné na ko ndeysaan par avertissement waaw waaw day neex ndeysaan arbitre sifflé na diggante Thiatou Aïda ak nga xam mooy Moussa Fall oh Thiatou ko benn voyage benn voyage la ko Thiatou Aïda def waaw waaw fils de Badou Ndiaye l'enfant chéri loolu neex na suma gaay yi ganja kan la ganja <laughs> waaw waaw ndeysaan diggante Cheikh Ndiaye Dany Mayo ak Zambala day saf ndeysaan day neex waaw waaw waaw Cheikh jël na tànk ba saa yokk ko di ko mbot oh, ñoom ñaar nañ lii lan da looy wax arbitre looy wax kee du de bëre waat takk na suuf de waaw waaw nee na moo daan nee na Cheikh moo daan Tapha Gueye nee na waaw waaw daw na dem na digale ndeysaan malam ñaani malam ñaani daan na ko ndeysaan jël malam ñaani daan na ko waaw Balde ak nga xam ne Balde ak nga xam ne mooy Fils de Batling ñaari defee la fi ba xam bii nan lay demee. waaw ah, ak lu bi. ndeysaan ak Fils de Batling. doomu laa Fils de sànq seen Ndiaye daan maa daan ko mu bëriwaat ñu daan ko. waaw waaw. laa ilaaha illallaah gars yi tàllal lu xew. booy seede oh, sa waay daa am trois appui. Fils de dalu ci ndeysaan. Ah, Thiès moo jël première deuxième Tamba troisième Ziguinchor. poule B. Diourbel moo jël premier deuxième première ci poulam. Dakar moo jël premier. Dakar. Kaffrine jël deuxième. Matam troisième. Kolda quatrième. Koulde. Fatick moo fa jiitu. Fatick moo jiitu. Ndar. troisième place. Kédougou troisième place. quatrième place. Louga quatrième mhm. Dakar. Thiès ak A. Diourbel taseeg Fatick plateau B waaw waaw Diourbel ak Fatick ay la xay la demi-finale yaa ngi noonu ndeysaan waaw waaw Diourbel ak Fatick Gandia Fama ngay yëngal ndeysaan la fa série de Bettenty waaw nee moom moom fii nee naa la Bettenty la jóge waaye ay kaara ko topp ndax boo gisee gars yi ni ñu doon si ndox mi ndeysaan yéeg gaal wàcc Thiès Dakar Diourbel Fatick looloy demi-finale yi merci ñoo ko déggandoo ndeysaan aada noonu la demee saf na neex na waaw nee naa la bi aada diggante Dakar cees lay doon te ñoom ndeysaan ñoo final woon fa nga xam ne ndeysaan moo di sa Mbour 2019 Thiès gagné leen 5-0 final tey dinañ xool nee naa la Zambala li bi door waaye nee naa la tamit Ada Boy Bawal moog El Hadj caatu Ayda waaye tamit nee naa la Tony Junior moog Dibakor Sagne ay waay waay loolu li si des du si débat gars yi nañ ko commentaire. tiir ban ceinture ceinture rouge wala bleu ndaysaan ceinture rouge wàll bee moo nekk Diourbel Fatick mooy ceinture bleu. ñu ngi laale ñoom ñaar ci wàllu bi nga am dakaar ak Thiès ndeysaan ndeysaan dakaar ak Thiès ndeysaan ndeysaan Dakar ak Thiès ndeysaan wàllu bee nga am Diourbel ak Fatick ñu ngi toll ci wàllu demi-finale yi Adama ñëwal ci dakaar bi ndeysaan compétition dakaar mooy bleu Thiès mooy rouge ñoom ñaar du yomb parce que ñaari équipe la yoo xamante ni mbokk yi ndaysaan wa ràññee nañ leen ci drapeau chef de l'État ay xale ngi noonu waaye nag compétition bi dañ leen a dañ leen a boole combat yëpp moom la ñuy siffler ndoo bu ñu sañoon demi-finale yi da ngeen am combat bi am combat be ndaysaan Dakar mooy bleu. ndaysaan Dakar mooy bleu ndaysaan Diourbel daan na Thiès daan na daan na am na ndam ci kaw fatik ndaysaan Dakar Thiès ñu ngi ci compétition bi ba tey Diourbel daan na premier combat ci compétition bi dëkk sëñ Basiirou sëñ borom mbég meeg mi dëkk Mbaye Babacar daan na dëkk kàggu ndaysaan borom ngénte lu neex li daan na ndaysaan ñu ñëw ci dakaar ak Thiès ñu ngi noonu ndaysaan ñu ngi noonu dakaar moom dëkk aadama la la cadreur des cadreurs boobu Dakar la dëkk ndaysaan ndaysaan ñu ngi noonu Dakar Thiès Dakar bleu Ibrahima Jonn Dakar. ngeen laa ñu ngi noonu ñoom ñaar dakaar ak Thiès daa mel ni am na ku fatt de Dakar Thiès Ndeysaan ñu ngi noonu dakaar Thiès Ndeysaan Ndeysaan Dakar Thiès Ndeysaan Thiès daan Dakar Thiès daan premier combat am Ndeysaan Ngor Ñaax ak Ndambe ñoom ñaar ñu ngi noonu Diourbel Diourbel ak Fatick Diourbel moo ngembo bleu Fatick ngembo rouge Ngor Ñaax ak Ndambe Ngor ndaysaan ñu ngi noonu ci compétition bi Ngor Ñaax ak Ndambe ñu ngi noonu fatik ak Diourbel ndeysaan ñu ngi noonu Diourbel ak fatik ñu ngi noonu Diourbel Fatick ndeysaan Diourbel ak fatik Diourbel ak Fatick ñu ngi noonu Ndambe ak Ngor Ñaax Diourbel moo ngembo rouge ndaysaan moo ngembo bleu ndaysaan Fatick moo def rouge Dakar ñëwaat na ci wàll bi deuxième compétition bi Dakar bleu Thiès rouge ndaysaan ñu ngi noonu dakaar ak Thiès ndaysaan Diourbel ak Fatick fatik am na benn ndam ci kaw Diourbel Thiès am na benn ndam ci kaw Dakar ndaysaan wala book Diourbel am na benn ndam ci kaw fatik ndaysaan Diourbel am na benn ndam ci kaw fatik dakaar jël na tànk bi jël na tànk bi yanu na ko yanu na ko yanu na ko Dakar jël na tànk bi dina ko daanam déet dakaar jël na tànk bi xale bi rëcc na ndaysaan mënoon naa jeex mënoon naa jeex ndaysaan mënoon naa jeex dakaar ak Thiès Thiès wër na ko ndomba Dakar day ñàkk Dakar di nga ñàkk Thiès wër na ko ndomba day ñàkk Thiès wër na ko ndomba Dakar mbaa du ñàkk Thiès na ndomba Dakar dina ko daan wala déet daan na ko daan na ko ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu arbitre bi sifflé na Ndeysaan dox ci diggante Ngor Ñaax ak Ndambe Diourbel ak Fatick Diourbel takk na Diourbel takk na daan na ko daan na Fatick Diourbel daan na ko ndaysaan ñëw nañ ndaysaan Dakar a ngi noonu ak Thiès ndaysaan Dakar jëli na tànk ba mbaa dina yomb Dakar Thiès ndeysaan dakaar Thiès Dakar Thiès Thiès rouge Dakar bleu Thiès moo ngemboo ngemb lu weex li Dakar moo ngemboo ngemb lu jaune li ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi toll ci wàllu demi finaal bi daw na jëli tànkam jëli nañ tànk ba daanu na daanu na Thiès daa génn na final Thiès dem na finaal Thiès dem na final Dakar éliminé nañu ko wàllu bee ba tey ñu ngi ci Diourbel ak Fatick Diourbel Fatick ñu ngi noonu ci compétition bi Diourbel Fatick ñu ngi ci ndeysaan ñu ngi noonu fàqat na ko ak Fatick ndeysaan ñu ngi noonu Tony Junior ma ngay jooy ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ba tey ñu ngi ci diggante Diourbel ak Fatick ndeysaan ñu ngi nooñu ci demi-finale yi ñoom ak fatik ndeysaan Diourbel ak Fatick Diourbel ak Fatick La Lyon La Lyon Thiès éliminé Dakar éliminé dina ko ndeysaan nee la moo ko génnee 5-0 waaye tey defagum na 3-0 ñu xool li des diggante nee naa la Ada Boy Bawol caatu ay loolu géré ko ñu xool ba ci kanam lu ñuy demee ndeysaan. ñu ñëwaat kon ci Dakar ak Thiès dakaar moo ngemboo ngemb lu bleu li moo ngemboo Lagos bi wan la ginnaaw Thiès moo ngemboo ngemb lu di ceinture rouge ngemboo ngemb weex li. ndeysaan ñu ngi noonu jëli na ko aada booy bawal jëli na ko ndeysaan génn na génn na ndeysaan génn na ndeysaan euh, ndeysaan faw mu sauver l'honneur ndax dakaar ñàkk na ci compétition bi Thiès mi ko éliminé dem na final ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngay lewaatoo Dakar ak Thiès Dakar moo leen ginnaaw Thiès ngeen jàkkaar lool ndeysaan wàllu bee ñu ngi ci fatik ak Diourbel ndeysaan daw na jëli ko ndaysaan Dakar jëli na waaye du yomb ndaysaan xale yaa ngi ci compétition bi mbokk yi ñu ngi fii ci Kaolack ndaysaan muy drapeau chef de l'État ndaysaan fale ñu ngi ci wàllu bee Fatick ak Diourbel ndaysaan Fatick ak Diourbel ak Diourbel Gandia gis ngeen compétition bi mu ngi noonu rouge mooy Diourbel Dakar daw na jëliwaat daanu na daan nañ Ada Boy Bawol Thiès daan na Dakar 4-0 Thiès daan na Dakar 4-0

Diourbel moo ngemboo rouge ngemboo ngemb lu weex li ak Diourbel am na lu xew Fatick daan na Diourbel Fatick daan na Diourbel Dakar ak Thiès ngay xeex déet waay da ci gars wax Dakar ak Thiès ngay xeex. compétition bi foo waaye gis naa xale bi nga xamante ni ndeysaan ñu ngi laale seeni biir. ñaaw na ñu dëkkal lamb bu fa lamb dëkkul na lamb changé kër Mamadou Diouf ITV e Mamadou Diouf ITV e ñii ñaaw na Mamadou Diouf lii rafetul Mamadi man Amady Mamadi yu mel ni du ma ci sax bëgg a wax ndax dafay ñaaw ci image parce que làmb dafa am benn xar kanam boo xamante ne dañ leen koo teg yu mel ni saa yoo ko gisee rek doo ko mën a continuer waaye ba tey ñu ngi ci combat bi diggante Fatick ak Diourbel ñu ngi noonu Diourbel moo ngemboo rouge ceinture rouge Diourbel jàpp na wër na ndomba wala déet lu xew Diourbel daan na Fatick wala déet Diourbel daan na Diourbel daan na Fatick Adama baax na mbokk yi yéen ngi noonu di gis ci komba bi doxoon ci diggante Diourbel ak Fatick ah recours dafa dugg léegi dañuy déglu verdict bi fan la jóge mhm. saytu dégg ngeen li nga xamante ni moom la Jurbel am muy ndam bi dellu siwaat na ci loxoy Jurbel kon 2-1 la Jurbel moo am 2 Fatick am 1. chef de bu daaw jeej waa Fatick dañ maa woor waaw dañ maa wor ma wor daaw jeej moo tax moo tax ah non ñoom dañ ma ne dañ laa sélectionné defi doo def éliminatoire ma ñëw foofu ndekete yow dañ maa boole koo xamante ne Omar Diouane la mu def un mois yu baax yoo xamante ne mu ngi may préparé wu moo tax affaire bi métti ma ren gi dañ maa woo waa Fatick dañ maa woo man ne leen ren moom affaire chef de moom pare wu ma ci ndekete yow eh, fek ma wax ak ma waxante ñi waa Diourbel waaw. waa ji dafa ŋaam rek keroog Gambie fee fa laa ko daan final mu nekk fi di ŋaam di naan di ma naan doo fan la ma daan ci maa ko mën. waaw yow waaw mercenaire la c'est la première fois may may teew drapeau chef de waa jur waaye eh, waa Fatick dañ maa wër moo tax ma woon le li ma mën. man du ma waxkat jëfkat laa. waa Cheikh Gandia Fama. di siyaar di gërëm bi dafay. dafa metti actuellement fi mu toll nii Fatick bu amee beneen ndam mën na cee génn ci diggante Diourbel ordinateur ñàkk na ñàkk na Diourbel éliminé na Fatick Diourbel dem na final Ndeysaan Diourbel daan na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 ak Fatick Diourbel moo ngembo ceinture bu rouge ngembo ngemb lu ñuul li Fatick moo ngembo blanc def ceinture bleu daw na jëli ko général jëli na Boy Faye Boy Faye sol na ko Boy Faye sol na ko Boy bañ na da koy doole doole daan na ko Boy Faye daan na ko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 di fëgg loxo bi ci bopp bi mbokk yi kon di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci compétition individuelle bi jërë ngeen jëf.